C'est toujours un réel plaisir de vous servir amis chers fidèles téléspectateurs de Sénégal 7 bonsoir et bienvenue ci plateau spécial bi nga xamante ni nag lu mënul woon ñàkk la ndaxte gis ngeen ne événement bu mënti bu mu mënti doon ci kàttanu suñu borom Sénégal 7 day ñëw ànd ceeg yéen ba ngeen xam ne saa su ne li nga xamante ni moo leen di yitteel lii tax ngeen di defal seen xol di kontaan di mën a nekk à jour dañ ci eh, nekk ba ni nga xamante ni moo leen di gënale rek ñu di ko defee noonu tubarkàlla kenn ku ne xam ne ne tey la dimanche 29 eh, mai 2022 yamook nag fête goo xamante ni dañ koo jagleel sunu yaay yi ñi nga xamante ni ba ñuy sonn ñun xamuñu ba ñuy daj yenn coono yu metti ñun amaana fooguñu woon sax ne dinañ ñëw kaw suuf donc dafay baax ñu daal di leen di sargal jaajëfal leen kontaane leen waaye tamit souhaiter leen une joyeuse fête des mères où que vous soyez que vous soyez euh, au Sénégal wala ngeen nekk un peu partout dans le monde surtout nag sunu yaay yi nga xamante ni ñoo nekk ci village yi souhaiter bonne fête des mères sur ce euh, par cette occasion moo tax ma daal di invité koo xamante nii tamit day jàmbaar euh, day koo xamante ni macha allah fa tubar fakàlla li muy def ba mu ko mënee ba noppi dafa nekk ko ubbeeku nekk ku serviable nekk ko am jom ba tax na ñu jël ko tey def ko sunu linguère du jour macha allah di wuyoo ci turu Maya Maya by séduction waaye tey elle n'est pas ici comme séductrice macha allah waaye elle ici en tant que mère ba tey daan ñu joxaale whatever euh, ci kàttanu sunu borom dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo tout d'abord ñu koy remercier nag ci li mu ñu nangul tey euh, ñëw euh, ci plateau bi Maya maa ngi lay nuyu pir xam bi baax na sama sama xol sedd na <laughs> tey tuutaloo bés bi benn yoon allez bienvenue ci entretien bu spécial bi nga xamante ni bañ ko indee rek sunu xel ci yow la nekk ngir jàmbaar gi nga xamante ni doon nga ko waaye tey nga représenté fii toutes les mères macha allah merci beaucoup Thiat uh-huh. maa ngi leen di nuyu uh-huh. di leen ziar uh-huh. di nuyu seen euh, téléspectateurs yëpp donc euh, di leen wax ne c'est un réel naa torop ci li ngeen tamu sama jëmm ju tuuti gi nga xam ne tajuma fenn <laughs> kenn xamuma donc euh, ngeen taamu ma def ma lingeer di ma sargalaale sargalaale jigéen ñëpp donc balaa may def dara balaa may sori ci waxtaan bi gannaaw nuyu naa j'aimerais souhaiter une bonne fête à ma maman. macha allah donc euh, sama yaay. Mhm. di ko wax jërëjëf. Mhm. ndax lépp moom la. donc maa ngi koy souhaiter une bonne fête. à mhm. elle à toutes les mamans du monde entier. macha allah macha allah bonne fête à toi aussi. Merci, bonne fête à nos mamans. Euh, mhm. chérie macha allah nga xamante ni amuñu seen fay. Mhm. wax naa ko tout à ci sama introduction sans sans ñun du ñu nekk personne euh, ndax dañoo nekk ñoo xamante ni seen ñaan ci ñun bal la boo xamante ni bu xasee tàkk rek jeex na tubaarkàlla kon nañuy gën a euh, dimbali sunu bopp waaye di dimbali waale sunu yaay waaye aussi di ñaanal ñi nga xamante ni sunu yaay yi nga xamante ni nekkatuñ fi Mm-hmm. doom yi nga xamante ni am nañ ko euh, li nga xamante ni ñoom rek loolu la ñu soxla ci yéen mooy ngeen nekk ci li nga xamante ni tout le temps loolu lañ daan bëgg loolu dafa am solo message la boo xamante ni bu foor la démb dama def statut li nga xamante ni mooy suñu afficie am ku ne ma euh, man kan laay souhaité ti joyeuse euh, joyeuse fête des mères ma ne ko ak fu mu mënti nekk boo ko ko ñaanalee dina yegsi ci moom du lenn lu dul say salaat yu baax mhm. te nekk ci li mu bëgg donc maa ngi la koy ñaanal suñu borom may la xolu muñ ak euh, toute personne rek boo xamante ni dafa ñàkk yaayam alors ñu ñëw ba tey suñu invité je rappelle pour ceux qui nous regardent via YouTube yéen a ngi en direct sur Sénégal set di kontaan bu baax tey di représenter toute femme tey ngir rek ñu daal di sargal sunu yaay yi mhm. je rappelle que Maya Baye euh, invité euh, ñu gën koo xam nag ci euh, Mariama Ndiaye mu nekk xale boo xamante ni tubarkàlla euh, de de très bas âge rek la dem jàngi ji bi mu jàngi ji ñëw jugé nécessaire lancé wu ci entrepreneuriat waaye jugul ci benn yoon rek di laal lépp loo xamante ni day soxal jigéen Maya nan lañu Euh, nan la jigéen bu mel ne yow entreprenante macha allah di cumuler à la fois vie de famille bi ak li nga xamante ni moom mooy compétence yi la yàlla may ginnaaw bi nga ko jàngee ba mokkal ko tubarkal la euh, yenn saa yi euh, bi nga koy allié comment ça se fait et c'est pas évident je pense. c'est pas facile <laughs> pour dire vrai ca c'est très difficile mm-hmm. mais comme li ñuy wax rek mm-hmm. xëy na suñu borom mm-hmm. moo lay moo lay kattanal mooy def ci yow jàmbaarte goo xamante ne da nga naan en aucun moment tu dois pas flancher donc peut-être loolu moo ñuy may kàttan gu ñu taxawee jàng jàmmaarloo ak euh, obstacle yi ñuy am yëpp en cours de mais c'est pas facile du tout du nag pour ñi nga xam ne dañu yor xale mm-hmm. ñi am jëkkër mm-hmm. war a liggéey wàcc toppatoo sëñ bi toppatoo xale yi xool ndax def nañ exercice yi xoolaat ndax tenue yi set naag yooyu yëpp c'est pas facile. macha allah waaw macha allah muy loo xamante ni lu am solo la du ci ñàkk lu mu doon loo xamante ni day day day xaw a metti mhm. que jigéen à la longue mën naa ne euh, bu ñu ñëwee ci kër papa ak yaay lañ fay fekk. sunu papa yi aussi ñu ngi leen di sargal waaye tey sunu yaay yi ñoo xewle. man papa yi laa faral de. ah man mii tamit sama xarit papa la <laughs> waaye tey sunu feetu yaay yi la <laughs> donc dañ leen koy jox ba mat sëkk tubarkàlla mais euh, tout le temps comme li ñuy wax rek kër euh, bu papa ñëwee dina def li mu war a def yëpp macha mm. allah sunu papa yi ay jàmbaar lañ mm. bu dul ñoom éducation yi mën na sax digg doomu mm. voilà ak yenn yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi ñu koy jàngal mais yaay mooy lijjanti lépp en quelque sorte euh, je dis que bu fekkee papa joxe na li nga xamante ne moom la warloo ci kër gi la plupart ñu ci bëri li ci des yaay moo koy lijjanti mm-hmm. loolu aussi nekk benn benn benn responsabilité boo xamante ni c'est pas évident tey boo amoon moo boo yëkkati ci ci bés bu màgg bi tey nga xamante ni dañ la ko sargale euh, ban ban ban message ngay joxar rek yaay yi nga xamante ni ñoo nekk dans le monde entier. ben je dirais que jigéen yàlla moo ko cëral. Mhm. jigéen li nekk ci moom yëpp suñu borom moo ko def mhm. ci moom. Mhm. donc encore une fois. di leen wax ñu jàpp rek tëw surtout man message bi ma leen di lancé par rapport ak man fi ma nekkee. dama leen di wax ñu takk seen dëgg jug lu benn loxo mën mhm. ñaar moo ko gën a mën bien sûr donc euh, dangay nekk nga nekk xale mhm. nga nekk mag mhm. nga am njaboot ci loo mun mënti nekk taabal bi ngay daaj sa buntu kër sax nga liggéey ci mu lay apporter loo xamante ne mun nga ci sutura su mun na nekk sa la yow ak sa njaboot sax bu ko xepp y a pas de sous-métier man jigéen ñi tey ci fête bi lenn rek laa leen di lancer ñu gën a takk ndig yi ñu liggéey macha allah parce àdduna fi ñu toll nii au au moment tey fi ñu nekk nii. Mhm. liggéey rek mooy fay. Mhm. ku liggéeyul yaa ngi perte yaa ngi foowee sa àdduna. donc munoo tout le temps ki nga naan jox ma jox ma jox ma tout le mhm. su yàggee moom sa bopp yow sax da am kersa dem ñaan ko. donc dëgg la jamono bi doy na waar métti na. kay taab daaj taabal teg ko ci buntu këram sax bu mu ko xeeb. effectivement donc nañ takk liggéey yi ñu mhm. liggéey. Mhm. encore une fois ñun ndaw ñu ñu jàppale yaay yi. yaay yi tamit yërëm xale yi. macha allah muy message bu ah. fort bu bàyyeekoo tey ci sunu invité lingeer du jour Maya euh, macha allah koo xamante ni tubarkaala wax naa leen ko sànq day jigéen ju mën góor entreprenante waaye aussi di yëngul ci lépp loo xamante ni rek mën na tax jigéen gën a sentir ci boppam à l'aise euh, ci lépp loo xamante ni rek non seulement dina tax mu taaru macha allah waaye tamit dina tax mu daal di sentir boppam ba fu mu mën a nekk di nekk foofu à l'aise donc yooyu yëpp aussi euh, moom moo tax ñu daal di koy tabb tey daal di koy indi tey ci fête bu spéciale bi Maya nag dafa am ñu bëri ñoo xamante ni dañuy critiquer ne euh, doxalinu yaayu léegi dafa xaw a différente ak doxalinu sunu yaayu njëkk ya parce que tey xam nga euh, ñi nga xamante ni ñooy sunu yaay yi taxawaay bu am solo bi waggar ñu daan waggar ci seen doom ñoom bugguñu dara léegi loolu dañ ko gisatul euh, tey la majeure partie euh, de de la de l'éducation de nos enfants euh, suñu jànkee ñoom ñoo koy yeggale wala ñu jël suñu ay gouvernante teg te amaana euh, coono bi nga xamante ni suñu yaay def nañ ko ci ñun ñun amuñu euh, boobu chance dox ko suñu doom yi donc loolu ba tax na ñu bëri jàpp ne dafa am lu muy jur ay délinquants juvéniles débauche yu bëri loolu moo koy indi tey boo amoon message boo doon lancé ci loolu et est-ce que d'accord nga déjà ci loolu avant nga indi euh, message booy booy tal ci loolu gis nga ma chérie sànq bi may comme je suis trop Facebook bi may parcourir rek na ma tey ku nekk tu as affiché fièrement ta maman. Mm-hmm. mu nekk lu rëy. Mm-hmm. ku nekk tey tu étais fier d'afficher ta maman. ñu mm-hmm. gis sa xarit yëpp gis kan mooy sa yaay. noonu sama xel ma ne. tey de ñun ñii suñu génération ñu ñëpp ñu ngi afficher suñu yaay yi pour ñu gis leen. sama xel dem ci ñun nañ def de telle sorte que suñuy doom ëllëg fier ci ñun. effectivement suñu parents yi laf cat macha allah. ils nous ont bien éduqués. mais ñun est-ce que réellement amati nañ jot bu ñuy concentré wu suñuy doom. Mhm. damay jël sama <laughs> exemple. waaw da ngay xëy le matin. <laughs> nga liggéeyi tu pars mhm. au bureau. Mhm. jóge bureau jubali dem institut ba. soo wàccee yaa ngi daw di xool. man benn tout tànk dama yàlla. dénk donc yaa ngi dem di xiir tout le temps sama yaay daf may fàttali dara su ma ko nee nii sax. au début dama doon kii naan ko parce que dama doon dafa elle était trop attachante mhm. ci man dama nga tëdd sa maam mhm. maamam dem ba sama yaay daf ma imposé dara nay tëdd ci yow mhm. bi ma ko laajee benn jour maa lu tax nga wax loolu mu ne doom guddi ngay waxtaan ak moom su ngeen demee ba guddi ci ngay waxtaan ak moom. Mhm. naan ko tey tu as fait ceci tu as fait cela. effectivement lii waroo ko def beneen yoon bu ko def lii beneen yoon bu ko def lii. mu ne mais seen génération da ngeen foog ne yar dóor la ak saaga. Mhm. te du noonu ñun yareewul leen noonu kon waroo leen yaree noonu seen. donc gis nga débauche baa ngi noonu. donc délinquance bi mu mën a jur mi ngi noonu. Mhm. foofu rek laay pëtaxloo daal di ñëw rek tuuti ñu waxtaanee ci actualité xam nga man dama naan damay faral di wax naan jouru fête day day day toog meeg xol yi ubbeeku. parce que envoi amour yi dafay bëri donc mhm. xol yi xaw a commencé desserré woo mhm. ni mu doon serré woo mhm. donc dafay nekk moment boo xamante ni peut-être bu buñ ci joxee message dina jàll ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko war a recevoir jamono ji gis nañ ni dëkk bi tàngee agression yi nga xamante ni saa boo xëyee yaa ngi tiit sax pour yow wala say mbokk donc euh, càcc gi euh, ray yi nga xamante ni gisuñu ko woon ci réew mi euh, yooyu yëpp aussi en tant que maire qu'est-ce que ça vous fait booy gis loolu ça fait mal. Mhm. parce que ma ne benn mère mérité na loolu. amul yaay ju nekk soo sañoon sa doom ci lu baax rek nga koy dégg. yaay ju gis sa doom ci lu baax dafay fier tellement. Mhm. donc di lancer waale un appel à jeune. Mhm. à à toute la jeunesse. macha allah dëgg la na. xëy na toll nañ jamono goo xam ne liggéey amul. mais pour man loo ñàkk ñàkk ñàkk. liñ naan mar naan su la taxee naan peut-être su robinet tijjee di nga rus. ak loo ñàkk ñàkk ñàkk. Mhm. gëmal sa bopp nga jug fayet ko. Mhm. parce que ki ngay dem di agressé. Mhm. dafa fayet ba am li mu am ba téye ko. donc c'est pas parce que yow amoo am na loo xam ne téyewoo ko nga war a mun a dem agressé pour am loo yóbbul sa njaboot. lépp looy yóbbul sa njaboot. tu dois la gagner dignement. macha allah mu lew la. Euh, ci kaawu Fatou Kiné rek lay duggee mi nga xamante ni ñàkk na bakkanam yàggul dara euh, te ku mu sekkaloon liggéey di xaasum nekk fii benn nekk benn sénégalais benn jeune boo xamante ni fii Pikine la dëkk. donc moom tamit euh, seen diggante yàlla def ci ndok seytaane am ci baray mujj cee am donc dafa bëri ñaari cas yoo xamante ni dafa concerné jigéen jigéen buy liggéey boo xamante ni ci ci wàllum xaalis la ana yan tax maanaam yan protection la war a am ci ki nga xamante ni moo koy liggéeyloo ba yenn accident yi nii di ko di di maanaam ñu koy mën a maytandi ko bu baax euh, bala ñoo ñëw ci beneen question bi bi ma la bi ma la bëgg a laaj. cas boobu moom dafa sensible tellement que. waaw waaw pour xuus ci dafay sax métti. si d'autant plus que. mais tey jigéen nga loolu war nga ci wax l'employeur. waaw euh, peut-être su fekkoon ne agression bi. Mm-hmm. c'est du point de vue extérieur. kenn ku bokkul ci entreprise bi. on dirait bu bu boobaa dinañ mën a ne. Mhm. peut-être entrepreneur bi ki nga xamante ne l'employeur na protéger bu baax ñi koy liggéeyal. mais lépp seeni biir la ñoom neen la. man peut-être fi may waxee wàllu jigéen ñi rek mooy euh, na ma gis souvent ci réseaux sociaux yi dëpp boobu ñëpp di xas jabar ji di xas jabar ji di xas jabar ji. Mhm. man foofu laay ñëwee. Mhm. la femme n'a pas demandé. à ce que mu dem defee dara naka sudul noonu. donc ñun ñëpp ñu ni neen la. ay jigéen lañ. Euh, man daal instant bi li am ci dëkk bi dafa jaxasoo tellement que tu comprends pas. effectivement nañ ñaan yàlla rek ak. Euh, suñu sëriñ comme mu ngi ci ndakaaru dañ ñaan yàlla lépp ñu fi ñaan lépp lu ñu ci wàcce kaamin lépp lu ñu fi jàng ci xasida sëriñ Touba mhm. mu seddal lépp macha allah mais da nga ñëwaat feneen foo xamante ni moo naroon a nekk deuxième question bi effectivement mooy ci jabaru xaasim mhm. tey jigéen nga moo tax ma lay laaj loo xamante ni dafa concerné jigéen mhm. ñu bari nee nañ moo ko teg pression ba mu jëf-jëf jii mu jëf vous avez répondu tout à l'heure que mu daal di def li mu def tey mais la l'autre question que tout le monde se pose actuellement mooy euh, xaasim naa que vingt huit ans am na tout le sax heureusement avant ñu koy teg loxo waaye euh, jamono ji ñu bëri li nit ñi di wax mooy est-ce que jabar ji maanaam bu ko xaaree dafa dafa dafa def selon choix wam wala est-ce que bu ko xaarul dafa goree di ñu bëri loolu la ñuy laaj donc en tant que tey femme toog euh, doo ci jël position parce que euh, nee nga nee nga nee nga dafa xaw a complexe c'est leur vie mm. privée mais tey am nga ci njàngat am nga gis-gis booy def parce que tey euh, sénégalaise la te am na noo xamante ne bu ko defee amaana nit ñi mën nañ koo ŋàññ mais pour que tey mu bañ a am benn parti pris ñu waxtaan dafa façon équilibre tey ban jàngat ngay def ci loolu rek ci bu fekkee ne même bu dee teg nañ ko yenn pen yi moom su ko xaaree nu mu demee selon vous su ko xaarut d'après vous yow dal nga ci jàpp. ca question boobu moom du ma ci sori sincèrement parce que je me dis que après tout c'est leur vie privée. d'accord mais xam nga lu tax ñëw ci. Euh, ñu ci bëri tey tey dafa nekk feetu jigéen ñi. oui dafa am jigéen yoo xamante ne jamono ji déjà ñu ci bëri ñu ngi naan elle se sent coupable. beneen bi ci topp ñeneen ñu ñu ngi naan euh, elle n'a rien fait xam nga tey fu ñuy waxee ni positivement am na ñuy xoolee négativement donc mu nekk ci benn embarras boo xamante ni elle na n'arrive même pas à comprendre les les choses donc ñii ñu ngi jàpp naan bu fekkee ne dafa dem dafa goree di parce que moom la doon satisfaire ba ba lii fekk ko ci bu fekkee ne sax sant ko ko ñii ñu ngi jàpp ne ak lu mënti xew rek moom euh, sant ko ko woon bu bu sentiree dem dafa war a dem donc euh, tey Maya lan ma ci sa xalaat du ma la bàyyi noonu. caat question boobu moom comme je t'ai dit rek <laughs> góob ma ne dinaa ci sori. Uh-huh. parce que vie de couple. Uh-huh. dafa nekk lu doy waax. Uh-huh. sutura couple la. sutura moo ko ëmb. ñoom ñaar ñoo gisante bëggante. sëy donc c'est pour le meilleur et pour le pire donc à eux de voir nan lañ koy kiiwee rek. di ko ñaanal bakken nag dafa foor nattu yàlla teg na ko donc voilà nañ ñaanal ki fi jóge rek parce que moom tamit jigéen la woon mm-hmm. nekkoon ndaw nekk ci buntu buntu àdduna mm-hmm. donc ça mal les conditions yi nga xamante ne noonu la deewee ça mm-hmm. fait mal man histoire boobu xuusuma ci jéemuma ci kii surfe lu bëri pour xam ci lu bëri parce que c'est très sensible et ça fait mal voilà mhm. allah donc dañ la koy nangul bu baax a baax question la boo xamante ni ñenn ñi ñu ngi koy ñu ngi koy laaj bu baax a baax te bëggoon nañu ci aussi ba taxlu kenn ku ci nekk def ci seen xalaat vous pouvez continuer de donner seeni i commentaires ak seen ak tamit laaj bi nga xamante ne laaj nañ ko te ñenn ci Sénégalais yi bëgg cee am lu leer bu ko defee ñu mën koo gën a yaatal bu soobee suñu borom bu ñu jugee rek ci agression yi ñu ñëw ci kaawu xale yi li tax ma lay laal tout le temps ci actualité bi fête des mères dafa yemook tey dëkk bi jaxasoo. Mm. te euh, je pense que tey ay ñun ay lanceuse d' alerte lañ ñoo xamante ni tey ñoo war di joxe ay messages yu mm. fort. Mm. Euh, ñu ci bëri euh, ci onze bébé yi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan fële ca Tiwaawan hôpital Abdou Aziz bi macha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla sunu borom ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ñàkkale sunu borom gën leen a may xolu muñ. te ñu rafet njott ci xale yooyu parce que ay xale la yoo xam defaguñu sax bàkkaar ci kaw suuf dem donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen aljana ci barki Nabil Moustapha mais ñu bëri di ko jiiñ ñi nga xamante ni ñoom ñooy hôpitaux yi ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy saytu sunu sunu wér-gu-yaram euh, ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo war a xool ban état la xale yooyu di nekk bañ a xool lenn loo xamante ni rek mën na leen a gàllankoor déjà actualité boobu bi nga koy soog a dégg en tant que mère nan la la def. man jour boobu je me rappelle je me suis couchée très mm-hmm. bi ma xëyee gis ko mm-hmm. j'avais très mal. ñi may suivre Facebook xam na ne j'avais lu ma waaw am lu ma waxul amul lu ma kiiwul donc mhm. Mhm. c'est purement kii bugguma ci sax duggaat mhm. donc en tout na may lancer un appel rek ñi ñu jiite nañ ñu yërëm ñi ñu jiite encore une fois nañ ñu yërëm parce que population bi du ñëpp ñoo am moyen wu faju actuellement man xam naa ci dara parce que bi mu ci feebar laa jóge nii macha pour def bilan xaalis bu weex taal ngay génn ci ay hôpitaux bien ci public bi waxuma clinique public bi mm. xaalis bu weex tàll un sénégalais lambda tey boo xam ne loxoom jotul ci ginnaaw mm-hmm. amu ko mm-hmm. te su ko amul du faju macha allah donc nañ ñu gën a yërëm rek mm-hmm. xam ne askan bi lañ fi teewal ñu gën ñoo yërëm gën am suñu yërëm macha allah dafay nekk lu am solo comme li nga wax rek yow ci ñi nga ñaan nga war a ñaanee parce que ñoom ñooy permettre à tout un chacun hôpitaux yi district sanitaires yi ñu gën am maanaam matu yenn matuwaay yi nga xamante ne moo leen di mën a permettre ñu mën a Euh, soutenir ñi nga xamante ni ñoom ñooy malade yi euh, lu ama am solo la fet de mères la woon ama invité ki nga xamante ni moom mooy Maya mhm. je rappelle que c'est une entreprenante mais euh, en même temps nekk koo xamante ni dafa yëngu ci wàllu astuce ak beauté dama lay ñëw rek nag laaj la foofu ñu bëri ci góor ñi ñu ngi naan yenn jigéen ñi lu bëri bu ñuy wax taux de divorce yi li koy waral mooy ñàkk taxawu seen bopp du duñu tal seen bopp yow mi nga xamante ni yaay yëngu ci wàllu mode et beauté en même temps xam ci yu yu xaw a macha allah tey en tant que femme lan ngay conseil ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci néegu sëy te yàlla dogal aussi que ne góor lu rafet ak loo xamante ni tout le temps da ngay ñëw di ko jommal lay bëgg yaa ngi woon ci yenn yi mais naa bàyyi noonu rek que da nga naan ma ci àdduma <laughs> donc mais ay dafa maanaam ñu lay fekk ngay nikkal dafa bokkoo ci li nga xamante ni muy gën a yokk sa cofeel ci ki nga xamante ni moom ngay bëgganteel donc yow dafa am solo da nga ciy joxe quelques astuces ak conseils rek ñu daal di koy pëtaxal boole ko ci fête des d'accord naa de góor loolu aussi. est-ce qu'ils est-ce qu'ils donnent les moyens. loolu c'est une question capitale que tout le monde Parce doit se poser actuellement. qu'on la vérité. yaay ji nga xam ne lu mu am talu lu dul yóbbul njabootam. est-ce que mhm. tal na pour. dëgg la est que jàppoo tamit Maya que ne question de civilisation bëgg sa bopp loolu dépendrul ci am xaalis. ci jox jox. parce que voile bi ngay dagg la pauvreté n'a rien à voir avec la propreté. voile bi ngay dagg. maître 600 bi ngay jënd dagg ko sax. Mhm. en tout muy cherul cher na. Mm. mais am na ñoo xam ne ñu ngi xalaat 4 millions yooyu suñ ko amee ndax duñ dem yóbbul ko njaboot. effectivement ndax la vie donc voilà mais di wax rek jigéen ñi. Mm-hmm. dëkk bi y a des yoo xam ne da ngay dem. Mm-hmm. defaru ba jekk. c'est que problème bi nag mooy Sénégal dañu mm-hmm. am tuuti complexe. ci tey da ngay gis benn mayaam am benn institut et tout. peut-être que yow yaa ngi naan ah institut maya bi de est-ce que se top xeeb nga maya. yaa ngi xool high class. Mhm. hôtel yeeg yooyu pour dem pour dem fa des fois tamit aussi c'est ça le souci. Mhm. dañuy am problème mu complexe. Mm. pour euh, lieu bi ñuy dem alors que y a coin boo xamante ne. Mm-hmm. c'est pas cher da ngay mm-hmm. dem. Mm-hmm. toute est nga defaru nickel génnaat. soo xamul sax ñu conseiller la ñu conseiller la effectivement parce que yooyu daf ci am solo. te dina gën a tax dina gën a mën a rataxal vie conjugale yi ci ci biir néegu sëy yi dafa am solo. alors Maya lu mënuloon ñàkk la ñu bëggoon a faire plaisir à nos euh, très chers fidèles internautes ñi nga xamante ne un peu partout tout le temps dañuy xaar rek ci genre. émission yu mel nii su defee ñu waxtaan ak ñoom indiwaat leen donc man plaisir bu énorme laa doon am tey doon la invité parce que wax dëgg yàlla nit nga boo xamante ni non seulement nii nga mer rek au delà de tout ça dafa dafa dafa extraordinaire ba ma la xamee ba tey wax dëgg yàlla euh, nit bu oyof nga bu baax nga bu serviable te noonu nga mel sax ci say ci say cliente yàlla na la suñu borom defal tawféex sutura si barki Nabil Moustapha dama lay bàyyi rek nga joxe message boo xamante nag mooy message dans l'ensemble ci fête bi tey en tout cas en tant que sunu lingeer du jour sunu xol sedd na bu baax a baax te xam naa ki la waajal ku mën a waaj la bu ndax xilxa <laughs> bi rafet na ah asa lan mooy nekk message bi bon j'en profite aussi pour remercier mhm. samay fidèles clients je dirais clients parce que sama institut mhm. euh, pédicure manucure yeeg soins de visage yu góor ñi comme jigéen ñi dañuy ñëw def ko macha allah donc dama leen di remercier parce que tey lu ma mën tey ñoom la mhm. c'était pas facile au début Mm-hmm. Maya onglerie la yoroon mm-hmm. coin bu ndaw benn magasin bu ndaw mm-hmm. onglerie pose ongle lañ fa doon def donc ñu dem ba di ci dugal ay soins esthétiques macha allah di ci dugal ay partie coiffure ñu dem ba benn employé laa amoon. tey j'ai cinq plus de cinq employés. alhamdulilah alhamdulilah donc lépp ñoom la. Mhm. parce que ñoom ñoo am wóolute bu ñuy ànd ak man tout le temps. bien sûr j'ai des clients extraordinaires. macha allah dañ may marqué Facebook foo ne lii pédicure manicure ñu ne la ma mais c'est parce que danga ngaa baax aussi. non mais xam nga les services que vous donnez tout le monde le sait. ñëpp a ngi koy mais des fois nit ñi euh, non des j'ai des samay clients man dama dem ba aw ma xarit. samay xarit ça tourne autour de mes clients. ndeysaan damay dem sama copine nii sama copine nii ñoom ñëpp. liggéey bi laa leen xamee. sama waa team Facebook aussi samay followers. maa ngi leen di nuyu. di leen ziar ñun tamit aw ma seen fay. très sincèrement. immature bu mag laa. ci di ruube. di def affaire bu mag a ngi nii gis rek maa donc voilà yéen tamit maa ngi leen di nuyu. di leen ziar di leen kuku ñëpp. sama yaay encore une fois. kenn du biram sàmm dëpp sàmbaam taal bi maa ngi lay beral nuyoo bi ndax lépp yow la damaa teel a ñàkk papa macha allah bi may ñàkk sam papa aw ma woon sax bakk mhm. yàlla def sam papa génn àdduna mhm. lépp lu sam papa mbëbatoon ci njabootam mu mhm. mottali ko macha allah macha allah merewuñu ko benn yoon tooguñu aussi ba sentir absence su papa donc lépp moom la par ma voix yàlla def nag amu góor ay jigéen rek la am man may taaw war a joxe yoon bi donc maa ngi ñaan suñu borom ci barkeb Serigne Saliou bi nga xamante ne mooy sama wasila moom laay yaakaar donc yàlla na yan bi oyof yàlla gëna a leeral yoon bi ba man ak sama rak yëpp lépp lu ñu mbëbët ci yow yàlla nañu yàlla may kàttan gu ñu ko eggalee ci darajey Nabil Moustapha amiin amiin donc caat yow tamit xam nga ne xam nga ne doo immature doo immature wax yi immature de ko wax immature <laughs> macha ah. allah tamit kontaan tamit maa ngi lay remercier bu baax. macha allah c'est vraiment adorable. yow ñëpp xam nañ ne je suis pas trop télé. waaw samay ruube Facebook lay am <laughs> ay génn mhm. mais xaw ma nu ma lay wax. wallaahi danoo bokkul mënta seddoo. et en plus euh, je profite pour cette occasion nit bu baax ku mel ne yow rek. macha allah Fatima chérie nit ku baax euh, madame Ndoye. Mhm. dañu lay ñaanal rek yow moom euh, dama lay bàyyi ak yàlla parce que danga ma bëgg te danga ko nëbbul Rousseau aussi wax ko fenn. benn dama lay ñaanal jàmm tawfeex sutura Maya aussi man remerciement yi ci man lay retourner parce que man maa kontaan man maa la woo même pas à l'espace de deux jours wax la nga ne ma ah yow dañoo bokk Serigne Sall xaw ma nu ma lay def en plus sama doomu bàyyi nga donc yal na la yàlla taxaw liggéey bi nga xamante ni yaa ngi ci mhm. euh, di ci góorgóorlu suñu borom defal la ci nuuru daara yi ni mhm. ci barki mat la bu shifaay kontaan nañ bu baax a baax lii lañ leen indiloon <laughs> dédié woon spécialement ci nga xamante ne ñooy sunu yaay yi rien que pour ñu kontaan mais fàttali leen aussi que ne ñoom amuñu lu ñu amuñu ñun lu dul ñoom macha allah mënuñu dem sans sans sans donc loolu it dafa nekk lu am am solo ñu leen koy fàttali ñu ngi ñaanal ñëpp te waxaat rek ñi nga xamante ne ñoo mel ne man jeunesse yi ñu gën a fonkaat sunu way juri parce que ñoom ñooy la clé de toute porte je profite pour cette occasion souhaiter sama yaay Aminta Faye tubaarkàlla une très bonne fête mais aussi à ma grande sœur bi nga xamante ni man moom sax laa gën a xam ajaratu Kiné Ndiaye yàlla nañu yàlla defal tawféex sutura ci barki Nabil Moustapha bu leen bougé léegi ñu indilaatal leen keneen bu ko defee ba tey ñu gën a wëyal li nga xamante ni moom mooy guddi gi euh, ci euh, fête des mères live am direct ngeen koy am sur Sénégal 7 merci et bonne fin de soirée merci beaucoup